loo xamante ni ci jutaay bii la bokk tous les mercredis ngeen koy am mu di jàngat li jàngat li la ñuy ànd ak moom Aïssatou mercredi bu jot muy ñëw ci lu am solo mu ñeel tolluwaay réew mi waaye tam loo xamante ni euh, saa yu ko waxtaanee askan wu Sénégal moom bu noppee euh, daan ci jëlee li nga xam ne moom moo di euh, njariñ ngay waxtaanee tey lu ñeel tolluwaay réew mi mu di dund bi nga xam ne yokk na. waaw euh, Cheikh euh, ni nga ko waxee noonu la amee. ma jaajëfal bu baax comme ni ma ko waxee rek c'est avec un très grand plaisir. laay patage partager ak yow plateau bi. donc di euh, bala maa dugg nag ci xolu waxtaan wi. nga may ma rek Cheikh ma jaal bu baax. ak lu laayeen temps yi moom on est très éprouvé. comme partout au Sénégal ci décès yi. jaal bu baax sëñ Jëmb Fall mi fi jógee. Euh, li nga xam ne xalif général kullu Baye Fall. Mhm. dafa naa laayu quinze ans quinze ans la toog defe naa ci ci xilaafa gi mhm. te wax dëgg yàlla daal ñëpp koy massawu ñëpp a ngi koy naqaru di ko massawu. Mhm. Euh, tamit euh, axlu Baye Fall yal na ko yàlla ñu yàlla taas si barkeem. naka noon tamit ma jàll kullu laayeen sëñ Mor Laay mi fi wàññeeku buy ji boromam barki dee mooy jaay di ko jàll nag Papa Doudou Laay mi toog. jamono jii di ko jaal euh, képp koo xam ne rek euh, bàyyi maam bàyyi laay ngay nooyee mm-hmm. di ko jaal tam sama borom kër ndax euh, sama cousin borom kër la woon tey c'était son meilleur ami mm-hmm. donc di ko jaal di ko naka noonu tamit ABC mm-hmm. waaw met ABC kooku moom kenn la woon si ñëpp ku nekk rek moo tax defe naa am na loo xam ne man naa gëj ngaa gis homme politique bu wàññeeku fii nga am euh, euh, li mu am ci ay naqarlu témoignage mm-hmm. euh, samedi defe naa Sénégal jàll nañu jàll nañu weekend bu bu bu metti la mm-hmm. la Sénégal passé mm-hmm. ndax Alioune Badara Cissé dëgg-dëgg kenn la woon si ñëpp te maa ngi gis enquête ñu ngi titré un titre magnifique nee ñu la politique vient de perdre son sëñ si Sy Dabakh dëgg la dama damay bàyyi rek damay damay damay dama bëgg rek Sénégal yi yëpp rawatina classe politique bi ñu fàttali ko waat ñaari discours yu mujjee def yoo xam ne pour man lekk la te testament la euh, bu njëkk bi mooy li mu defoon ci émeutes yi hmm. la mu wax ci émeutes yi euh, euh, di ñaan di sàkk ñu delluwaat ci démocratie hmm. ñi jiite <coughs> gestu bu baax askan wi hmm. bokk na si ndaw ñeeg tout tànk yi jigéen ñi Euh, fii tamit Futurs Médias defe naa la mujjee def sa dernière sortie voilà une excellente émission vraiment di ci wax yu am solo euh, di di di di wax nag diggante ma président Macky Sall ma jàpp si li mu wax ne li mu mujjee wax ne le président Macky Sall xel bu baax ci troisième mandat mhm. loolu moom moom président na si jàngat mais la classe politique aussi jàngat bu baax a baax si jëmm ji fi dëgg. ñun ñii tamit kii la euh, ndax ku ne ñaan nga yàlla boo génnee àddina ñëpp mm-hmm. naqarul ñëpp jooy la ñu jooy Ali Badara Cissé mm-hmm. loolu daal Cheikh laa bëggoon euh, laa bëggoon a ubbee mm-hmm. euh, di ñëw nag ci li nga xam ne mooy mooy li nga ma laaj te loo xam ne naqar la boo xam ne te ko dama ko def en corrélation ak discours maître Alioune Badara Cissé ñëm si yàlla parce que dëgg-dëgg Sénégal wax nañ ko fii bii passé lépp a metti fépp a cher fépp lépp lépp ñu ngi wax denrées de première nécessité li ñuy lekk. Mhm. mais béton fer yooyu yëpp dafa cher. Mhm. tout est cher dans ce pays même loyer loyer léegi euh, euh, euh, avant trois mois la ñu laaj nit ñu di jooy mais léegi da ngay gis ñu laaj ci quatre mois. Mhm. donc ce que ce qui veut dire que ñun suñu njiit yi ñoo ñoo ñoo amul suñu yërmande xam nga inflation bi nga xam ne yàgg nañ ko fi wax di koy jooytu. conseil bi nga xam ne amul benn njariñ ndax njariñ li mm. euh, en tout cas de mon point de vue moo nekkoon ñu ñu toog foofu ndax ñu lool lañu tàmm ñu Sénégal yu mel ni ba amaan ministre bu ñëwee toog bu ba dajalee euh, acteurs yëpp mm. bu ñu génnee annonce bi mooy ak compter euh, de ce jour. Mm. jël ay décisions ay décisions. yu fortes oui. décisions yu fortes ne lépp ñu yokkoon wàññeeku na. Mm-hmm. gars yi nooy kontaan suñu mais lii dégg nga du du woon dara lu dul pour man benn rencontre nii euh, euh, pour naxaate dégg nga euh, naxaat defalaate parce que ñàkk ñàkk poigne weesuwul pénurie bi nga yaa ngi dégg ñu pénurie artificielle waaye comme instant organisé mm. pour seen seen seen naf su bakkan ñoom yow nga noot tout une tout un pays tout un peuple mm. ñoo xam déjà ñu ngi dund inondation yi ñuy jooy pareeguñu mm. léegi nguur gi c'est-à-dire on a Sénégal Sénégal d'en haut et Sénégal d'en bas malheureusement Sénégal d'en haut ñoom nekk su ñun. Euh, yow loolu am ñu koy jooy yàgg nañ ko jooy avant ñoom ñu ñu ñu organiser lii te pourtant avant Chérif li ñu xamoon ñun mooy yu mel ne ba amaan benn benn commerçant en tout cas de mon point ci la ma fàttaliku sañoo xëy suba rek yow ok dis de sa bopp ne da ngay da ngay rënk ay affaire pour xaar ba soo nga génneel ko. ñii di neexalaat teg di raay di dafa ay kenn xamul léegi bi ba nañu yuuxoo yuuxu yuuxu yuuxu yuuxu ci lañu doog a organiser lii nga xam ne c'est de la poudre aux yeux dajale leen naa la léegi parce que lañu lañu wàññi xaw ma la naa la dañuy gelé nañu pour 45 jours ak yooyu <laughs> mais kooku amul benn impact benn incidence mm-hmm. si conjoncturel si non ça n'a absolument aucun sens aucun intérêt léegi euh, euh, qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que euh, nous allons continuer tey jii suukar ba tey mi ngi manqué. Mm-hmm. la la la yokk woon ba tey wàññeekul ñoom ils sont incapables d'annoncer une date. prôné euh, au moins parce que maîtriser wuñ ko parce que lu ci bëri dañ koy importer ce qu'ils ont dit mooy c'est sur le plan international parce que ku frais yi dafa yokk. mais mais xam nga si inondation dégg nga ñu euh, wàcc c'est les conditions c'est les conditions climatiques c'est-à-dire. à chaque man loo métti mooy chaque fois ils se justifient te ni ñu justifier ça ça c'est comme si ñoom ay ay xar la ñuy jiite. parce que mënoo na yow nguur nga ba pare nga ne yow maîtrise lu ñu la bu fekkee ne maîtrise wu daal mais mais tu sers à quoi ci ci si laa ñëwee ci neen mhm. d' accord naa man le premier responsable c' est Macky Sall parce que moom moo toog yoom nekku ci mi ngi lijjanti yoo xam ne nii euh, boppam la intéressé mooy ay local ak ay kenn xamul euh, géré wu sax gouvernement wu te encore une fois damay ñaan mais ñëpp ñaan nañ ko bien que sax moom moom xam nga Macky ko nit wax yoom ne danaanoo du ma ko def ne su ñu diw tax ma def ko mais premier ministre ñu dañ ko soxla parce que lu dañu soxla ko mooy Macky mënul mënul mënul buur di bu mi jéem na ko ba mu ko génnee ba tey amu ci ndam mm. léegi ministère bi n'importe quoi la benn visibilité ci ministre bi les gens font ce qu'ils veulent ñoom ñii ñëpp ay asame yi nga xam ne dëkku si si loolu si asame ñu tallu dara ak ay dem di xëccoo ay kër masaa yu kii yu kii yu ñàkk yoo xam ne ñu njariñ donc yow Macky Sall jiitoo euh, euh, téewoo pañewoo sa gouvernement say ministre faale wu ñu la xamoo lu ñu def xamoo lu ñu doxul mais ma ngeen di waat nga tas gouvernement bi delloo restaurer la fonction de premier ministre moom ñaam ñu am benn interlocuteur am koo xam ne mooy rendre compte mooy mooy mooy l'action du gouvernement comme comme ñu xam ko parce que lu ñu ni nga ni doo yëgu ma ñu mënoon ko ça ça nous on subit quoi on subit on fait subir te on a pas mais moom dégguñu ko ci prix le président parce que le gouvernement est en vacances y a plus de donc bon vacances entre parce que conseil des ministres amatul donc y pas encore d'occasion président mën a wax sénégalais sax sur la hausse des seen vacances yi dañ koy doog acté mais ba bañ vacance ba tey mhm. ñoom bañ bañ bañ bañ nekkee vacance ñoom bañ bañ bañ nekkee vacance te vacance sax c'est parce que euh, c'est un euphémisme ñii ñu ngi si léthargie depuis Mathusalem bañ 2019 bañ ne falee ba tey ña ngay nalaw parce que Macky Sall ñamu fal ñamu waroon fal falu leen ay incapable lañu ay béni wii wii ñoo xam ne vraiment ay ay ay taalibe sa sëriñ la ak ay ndongo daara ñooñu la jël il fait un casting de rêve mooy ñoo xam ne nii buñ ne uux il faut ñu demande permission pour ne uux donc résultat baa ngi nii luñ la laaj ñu ne xamuñu ko mënuñu ko mënuñu assemblée xam ne vraiment man man man je suis pas fière en tant que di di song ay jigéen. Hmm. dama si ñàkk mais lu mu ci mën mënu ci dara donc. mais justement ministre du commerce am na responsabilité ci li xew. ministre du commerce bi mooy li ma tout le temps gis nga bu ñu dénkee responsabilité euh, yow ki la dénk dalaa wóolu moo tax mu dénk la. te fu nekkul dara fu dara nekkul yaa war a góorgóorlu def fa dara mënuma dara du wax yow moom moom mii assemblée mii moo waroon li jënd jéem omo ndax ministre fi nekkoon yëpp yu yu yu ko jiite woon pas gouvernement Macky Sall le gouvernement Sall du ñu ay référence mais gouvernement Abdoulaye Wade yu mel ni bu amaan ministre ñoo jël seen seen seen responsable au moins en 2008 fekk nañ fi crise bu métti ba ay émeute am fi ah. ci li la woon affaire yu mais au moins après comment ça s'est comment ça s'est résolu. non conjoncture mondiale bi changé rek. ah, ah non Chérif Chérif euh, euh, gis nga gis nga ñii li xew nii dafay wane rek ne suñ suñ suñu réew mi moo metti xoolal euh, association de de consommateurs yi ay askan ñooñu. Macky Sall ni mu réussir am nga noppiloo euh, société civile ku ne mu jël la jox la benn bonbon nommé la benn affaire nga topp na dafa noppi. association consommateur consommateur xool Mamadou Ndaw sama grand je l'aime bien Mamadou Ndaw est dans toutes les sauces Mamadou Ndaw est dans toutes les sauces euh, affaire yu ba xam ne mu ne ma nga fa. mais yow noo mën a def ne ne ne dangay dafa am consommateur te tu es payé par par ki nga xam ne nii yow normalement danga war a song. ça sera difficile. mais yow dëgg c'est pas possible on peut pas juger parti. bu gisoon gis naa leen si image bi mu sol teg la ñaari tànk sëñ sama jekk teg la ñaari tànk teg si téléphone am nee nga après bu génnee oui euh, non les si si les si laa nankaran karan xoggali ko wax euh, euh, kii sax beneen paa bi sax mi mi ngi ko tukkuti di jéem a wax tuuti. Mm. kii moom mi ngi liggéey de maçon na. waaw mm. maçon na mais imagine toi depuis matiselle man man man ba ma juddoo ba tey. Momar mm-hmm. Ndao moo yor ASCOSEN. Paa Masson ka nekk mu association des consommateurs. beneen ki keneen sax def naa gën kii nu mu tuddati. Jean Pierre Jean Pierre Dieng. ba léegi léegi mi ngi ba léegi mais moom parce que moom tamit euh, dafa mel ni ko xaru. Hmm. donc du coup ñun on est laissé à nous-mêmes. Hmm. Euh, bu ñu amee association de consommateur boo xam ne qui est complice qui qui qui est quand même la complice de de de l'État. Hmm. parce que bu ñu ko jot ay prébendes. mais ñun. askan wi ma leen wax sànq 2008 ay émeutes moo fa amoon te gis nga émeutes yi amoon noonu. parce que fi ñu toll nii Sénégal yi dañoo mûr de amuñu ful ak fayda boo xam ne. comme ñun Momar Ndao mii moo ko lancé woon. ma ma Ndao moom xam nga Momar Ndao la mu nekkoon 2000 ak na ma nekk léegi dèjà ci commencé Abdoulaye Wade la commencé woon di ko ndaandaat tuuti mais léegi da nga ràcc. Mhm. di ko ndaandaat carrément yow Momar Ndao est dans tout. mais ya a aussi syndicats yi parce que daan nañ gis aussi même bon gis nañ ñu def communiquer les centrales mais yu mel ni bi amee parce que syndicats yi nga xam ñooy défendre travailleurs parce que lii ñi ñi ko yëg bëri na les consommateurs ñi nga xamante yor seen salaire dañ ko yëg seen poste euh, mu mel ni aussi aussi société civile même ba ci way politique yi donc ça concerne tout le monde. parce que tout le monde est yi Chérif. ba ci médias yi sax moom. n'en parlons même pas mais dama ne. pourquoi. non xam su ñu pourquoi n'en parlons même pas hmm. parce que man pour man dafa am une une yoo euh, xam ne ñun ñun en tant que média. dañu ko parce que ni ma waxee rek tout le euh, la c'est informer euh, mais après on éduque aussi xam nga man donc donc ci éducation mooy boo xoolee yu mel ni mu amee man man man j'aimerais bien. ñu indiwaat ay ay reportage yu ma déglu mais boo xoolee ay c'est encore toujours la politique. Hmm. alors que yii Euh, c'est une information capitale ba pare dafay dugg si dundinu nit ñi am nañu fa rôle aussi bien que suñu rôle nag il faut le reconnaître aussi c'est un rôle carrément secondaire parce que ñun mënuñu loolu fësal ah, la ñu mën te place bu jox la ñu war a fësal mais homme politique yi nga wax nii classe politique abandon bi nga wax parce que le le peuple sénégalais est laissé à lui-même dañ dañu abandonné xoola opposition da da ngaa dégg benn opposition bu bu ŋaan ci lii xew waxuñu ko taluñu ko ak seen ay grande coalition wa ay élection locale waxoon na mais Bougane da ngaa noyé dans un fleuve de te ñoom sax buñ ciy wax li ma gën a mën naqar bu ñuy wax si affaire inflation c'est encore pour des raisons politiciennes dañ koy wax pour dóor si Macky alors xamuñu ne ñu si dóor si Macky d'accord mais nañ leen jàppale askan wi avant tout ñëpp ñu abandonné association des consommateurs nga xam ne au premier comme li nga wax sax léegi après qu'est-ce qui va se passer ras le mooy am ras-le-bol généralisé ras-le-bol la ñu que yaa ngi wax ni même ci njëg yi denrée facture yi nga xool ndox mi mais mais xool ndox mi xool ndox mi euh, euh, bi passé ñi yor ñi jot facture ñëpp mais mais xool man man man man courant rek hmm. courant xoola courant bala maa ñëw si ndox xoola courant nous là on a une facture de trois cent et quelques mille francs Mm. ba xam ne xamoo ne ñun sa gis ku ñëw ku ñëw ak a lëfee. non gis nga ku ñëw ak a lëfee. waaw bu boo amee. mais xamul la boo amee woyofal nga jarul nga lëfee. est-ce la non attends non woyofal li nga conseillé nga fekk bon bu dee fu nekk nga def climatiseur aussi ah. yaa ngi <laughs> xoolal gis nga woyofal boobu jéem naa man mm. jéem naa ko am pour pour pour euh, sama borom nga installé na ko pour pour pour xaw a wàññi tuuti ñu ne non nañ jël quelques euh, matériel doo ko ci wayafal bi yeneen jéem def ay affaire matériel na bu dee kenn waaw mais mais xoolal ba tey wayafal sama gën a cher ci après tu te avec ay xaw ma lan ay euh, en pleine nuit mu jékki-jékki nag kaay dagg léegi ngay ñaan après tu es obligé nga delluwaat ci lële. Euh, ndox mi c'est abusé. mais ndox mi c'est abusé xoolal ndox mi. chéri Cheikh ndox mi ay 1500 la woon ay 700. mais xam nga xam nga kañ nga ah, xam nga xam nga premier abi bi euh, Cheikh xam nga premier abi bi lan la. te wax nañ ko fii tout à fait chérif mooy contrôle yu bees yi ñu imposé ma damaa ñëw ñu imposé ma contrôle ñu seen contrôle yu bees avant contrôle ils avaient annoncé la couleur. avant compteur dañu jékki-jékki rek. c'est passé du euh, set boobu ba léegi xoolal regarde xoolal temps service météorologie bi nekk ministère du commerce. mais mais la ñuy wax. parce que tu crois que euh, seen hmm. euh, am na ñoo wax ne ñoom sax géré wuñu ko ay ay ay ay prestataires ñoo koy gérer donc quelque part ñoom ils sont même pas truqués mais li li leer mooy. man li ma li ma dénoncé condamné ko mooy lu mel noonu ba amee bu waree am mais il faut que tu communiques d' abord tu communiques en amont comme en informe nit ñi bu def ay truc et puis tam compte mënoo ko changé en tout cas mënoo ko parce que c' pas dafa am 15 ans looy prouvé dafa am 15 ans mënoo ko changé te yàquwul défectueux nga dafa am 15 ans bu amee 15 ans bu amee 100 te ba léegi mi ngi baax pourquoi jungle la léegi. Oh, la raison oh. la plus forte. non c'est la raison la plus forte léegi bu bu bu ñu defee noonu ñu nekk ci ci ci réew moo xam ne tu vas voir euh, tout euh, euh, tout passe comme ça comme lettre à la poste te après ñoom pour ñoom dafa mel ne dañoo dañu foog ne dañoo anesthésier la population. Mm. parce que yuuxu amul dara amul. Mm. léegi muy dem crescendo. Mm. mais suuf bu yuuxu di am Cheikh Tidiane Diaw. di leen bett te mu nar a raw émeute parce que. nit lu muy lekk di ko naan dëkk boo xam ne si mais cher dëkk boo xam ne amoo liggéey liggéey amul salaire amul léegi lépp tout lépp yokk. mais est-ce que ñoom je pense qu'ils sont conscients j'ai lu je pense que Vox Populi c'est Maodo Malick Mbaye qui est. mais nee na gis naa ko nee parti de la vie chère mooy seen adversaire ci local yi ñu yëm. parce que euh, euh, mais loolu tamit jéem non xam ni seen adversaire bi la waaye nañ xam ni tamit am na. ñeneen adversaire adversaire bi mooy ni ñu daan dundee non non local tam nga gis nga gis nga li mu wax wax nii local notre majorité risque d'être secouée par le parti de la vie dure mais soxlawu ay local. Hmm. soxlawu local parce que ñoom ils sont dans des calculs politiciens. Sénégal yi dañ moo tax ma ne Sénégal am. ñoom ñun li ñuy dund ñoom ça les intéresse ñoom ñoom ñëpp ñu ngi si ay affaire yëf yu bakk ne tout ce qu'il dit c'est juste pour la pour amuser mais sénégalais yi am nañu fulla ak fayda boo xam ne mhm. lii trop c'est trop bii day day xëy suba rek day nekk comme raa de marée bu daanu seen kaw pëccëxlu du ñu xam du ñu xam fi koy waxee. télé bi ma euh, euh, euh, lay laaj nag ngay ngay dem ah yaa ngi kii léegi laaj bi mooy justement c'est <laughs> lié toujours mooy justement ñu ngi jëm ci local yooyu. mais am na coow lu fi juddu aussi mooy affaire certificat de résidence yi. entre les municipalités ba ici à Dakar on a vu maintenant le gouverneur na moom bedd na leen ci léegi préfet yeeg sous ñooy joxe certificat de résidence ba ci police. mais mais mais xam nga loolu man des fois je ne comprends pas euh, cette classe politique euh, de manière générale rawatina opposition bi parce que euh, acte trois bi euh, ñëw ma fi pour ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu reliraat ak acte trois bi acte trois bi ku ne xam ne ni fii c'est pas résidence moom police ak gendarmerie yi yàgg nañu ko joxe wax dëgg yàlla mais man man li tax ma ne comprendre ma leen mooy euh, yow bu fekkonte ne sax gouverneur daf ko daf ko njëkkee dafa njëkkee dañ na ñëw salaamaaleykum maaleykum salaam rek ba xëy ñett gouverneur bi joxe certificat ñu mën a wax mais dañ leen a bàyyi ñoom maire yi su ma su ma nee maire euh, euh, dis distingué wu ma opposition. wala pouvoir mm. parce que li kii def kenn keneen kan koy def aussi. Mm. ñoom ñu dugal seen kër pétition yooyu ci loolu boo yaakaaree ne Cheikh Tidiane Diaw mi mu demandé certificat de résidence wala Cheikh wala mu demandé certificat de résidence àndul ak man. Mm. te loolu même ay ñu bokk kaan yi àndul ak man bu te syndicat yi boobu moo tax mu inscrire kon bu inscrire du ma voteel mm-hmm. nga fexe rek ba faagaagal loolu xam nga loolu teguñu ko fenn donc loolu temps yëpp ñoom si ñoom politiciens seen bopp ñu ngi koy ñaxtu parce que ils sont incapables de taire euh, leur ego. Mm-hmm. ak seen intérêt bopp. Mm-hmm. pour le pour le général pour pour au demee ak benn légaati donc de mun ñu war ils en dans quelques jours yëfi tëj da nga warul mhm. léegi est ce que kon donc dans. voilà est ce que léegi est ce que léegi. xel mun na nangu ak xalaat ci réew boo xam ne c' est pas une jungle quand même tout de même. Mhm. c' est quand même une république. Mhm. est ce que léegi ñu xel mun na nangu. ñu nekk ci réew moo xam ne politiciens ils sont incapables euh, de s'autogérer de prendre leur responsabilité fu nañu dugal fa kër kër kër politicien mais force doit rester à gouverneur bi man dama j'applaudis à ce qu'il a fait naka def moo tey def ko parce que ñoom ils sont ils en sont incapables dañuy màttante di di gerante dañuy ay euh, de résidence yi dund ay chinois c'est des sénégalais. mais c'est des ñoo xam ne te li gën a li gën a métti mooy sénégal sénégal mooy xeex donc gouverneur yi mais man d' accord gouverneur lu gouverneur def dama dama dama dama ci nangu. Mhm. j' applaudis à deux mains et deux bras. Mhm. parce que tout simplement ñii euh, euh, mënuñu ko moom mu def ko légalité ndax intérêt Sénégal c' est l' intérêt supérieur de la nation. kon euh, gis naa opposition yi ñu joxat comme d'habitude ils sont incapables de de s'unir devant l'essentiel oui xaw ma nag l'autorité naan nangam nangam c'est encore Macky Sall mais. nañu bàyyi ba jàpp un préfet ou un sous-préfet flagrant délit na préfet bi ñëw ne na le chef da dem de de chef par exemple préfet def comme policier nu mu mais euh, il faut qu'on arrête aussi il faut qu'on arrête xam nga ñoom opposition bi xool seen coalition yi Chérif Ka euh, dégg naa dem ñun ñun dañ ko. est-ce que war a installé te te lañu war a installé seen seen seen soi-disant grande coalition ñoom ils sont toujours dans leur calcul politicien. en réalité yëfu askan wi intéressé wu leen donc seen coalition yi nga xam ne man je ne absolument pas du tout parce que nu ma ko keroog moom laa. loolu coalition caaxaan naa ña fa non Chérif yàgg nañu xoolal coalition bi gën a yëf xëy yàgg a weesu ak yàgg jiitu. FRN la ñu fii CRD nangam nangam ñu créé fi lu ne. mais bii xeetu création mooy def nañ ko fi. mujjul fenn ñoom gis nga gis nga xool ñoom ñëpp. max ñoom ay cadavre ambulance lañu. ils jouent leur va-tout. léegi nag problème bi mooy. ñu war a xam nañ loolu moo tax. non mais suñu war nañu ànd mais mais suñu xam-xam pourquoi seen ànd du sotti. Mm. problème déggoo la. kenn ku ne kan mooy jiite gis nga bu ñu demee ci paandoo xam nga xam lu koy tas lu ba léegi nii yaa ngi kan mooy jiite yaa ngi dégg ñu naan PDS euh, euh, euh, mi ngi am ay truc mi ngi am ay ay ay ay ay ay ay réticence mm. ñi ngi am ay kii kii na dugg kii na dugg wóolu wóolu am parce que local la ci nekk localité ba nga am doole non mais mais chérif xam nga ne ñoom local présidentielle ñoom ñoom waaw mais local yi dañ bëgg rek campagne ñoom ñoom ñoom local yi local xam nga primaire la xam nga primaire la mais dama ne mm. opposition l'histoire a démontré Mm-hmm. fii man opposition benn fenn dama laa mos a gis ñu réussir ko. mooy en 2000 bañ bañ bañ demee jëli ji Abdoulaye Wade mu ñëw. mais y' a 2009 aussi les locales. en deux lan la am moom laa ko keroog cee na boobu ma ko invité. Mm-hmm. tant ñoom ñëpp ñu ngi taxaw ku ne bëgg a jiite ñu xoogalu ku ne naan président di président raante président président président Serigne président Nangam président cee na boogum. Mm-hmm. ñu di tiitoon na ku dof dof la naan ay. ay président mais du ñu avancé. d' jërëjëf waaw ki ma témoin la ñuy jaar fa la ñuy jaar kii candidat d'ailleurs moom. Ah, waaw <laughs> amul benn problème incha allah léegi léegi lay doon euh, bu ñu rek euh, soobee waxtaan bi ak nga xam ne euh, moom moo di Serigne Mboup ginnaaw li nga xam ne moom moo di bàkk bi ñu wéyal waxtaan wi ak suñu gan.